serigne bi nak tay nga euh ci consultation gratuite bo xamanteni sama xarit bi moko def indi fi fukki médecin ak juroom ñet xarafal lu mat téméri xalé yo xamni ñat téméri lañ bëggoon waye biñu dalé bindu ak tay téméri xalé ak fukk ak juroom ben lañu am moo tax ñëpp ñu xarafal leen solal leen yëre may leen garab nga ñew fi tay gis ni ñu ñepp say njabot lañu mu taxaw ak honorable Yaya Diallo nga gis ni ñom ñepp ño bokk nday ño bokk bay mm. ñew fii tay wané ni tiwan benn bop la kenn mënu ko xarñaar te ñun sunu génération lu ñuy def yow la ñu sa baay booleel kon boo ñëwee fekk sa njaboot jëf jëf lu mel nii boo ñëwee ñu bëggoon wax rek nga sànni ci ñaari kàddu di nuyu sama ndiyaay alxaaj jawhër bu baax a baax aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah xaaju meeg ñu lay nuyu di jiital nuyoo bi gannaaw sunu wéyjur sunu baay alxalifatul am li taifa tijaniya sëriñ babacar si mouhamadou nin mansour ak ay rakkam Serigne Maodo Serigne Serigne Babacar Sy Abdou ba ci seeni doom rawatina nag sunu kilifa ki nga xam ni moom la ñu jëmmal ci jataay bi muy Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy bu Serigne Aziz Al Amin mu làmbaale kilifaam magam sëriñ babakar mi nga xam ni mooy taawu Serigne Abdou ñu nuyu honorable Yaya Diallo tabaarakallaahu di ko jaajëfal di ko tatagal di nuyu bu baax suñu mbokk mii nag di xaaji Yellamine di suñu wëllëre yàlla boole waaye yàlla boole nu ci keppaaru sëriñ Abdou Aziz Al Amin muy doomu Tiwaawan tabaarakallaahu dëkk fi bokk fi yàlla dogalit ni mu fi dëkkee bokk fi noonu la waa Tiwaawan bëggee mu bokk fi te dama daan dégg suñu wéju sëriñ Abdou mu naan bul bëgg dëkk ba dëkk fa mm-hmm. na la dëkk bi bëgg nga dëkk fa kon tabaarakallaahu dëkk bi bëgg na ko yàlla dogal mu bàyyi koo fi euh, nekk fi acteur yitam di yëngu ci wàll yu bari tey lii facette la ci wàll yu bari yi muy yëngu te mooy tabaarakallaahu li nga xam ni moom la initié ak mbokkam yu baax yi ngir dimbali njabootu Tiwaawan ngir dimbali njabootu xadara bi waaye ngir dimbali itam euh, njabootu Sénégal sax laay wax ndax euh, ni ko waxee tabaarakallaahu mbir mi am na solo lool ba foo ko mën a natt solo bi weesu na ko ndax tabaarakallaahu ku fi nekk di am sa wérgu yaram di am sa afiya yaakaar naa ne amul lu ko gën a euh, euh, fort ci nit te doomu aadama nag euh, wax dëgg yàlla service bi nga ko mën a rendre mooy lii ndax Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu wax nañ ni dafa waxoon ne bu ma delluwaatoon di ndaw dinaa jàng médecine ngir mën ci dimbali doomi jullit yi ndax nit boo ko jàngalee baax na boo ko yaree baax na waaye fexe ba mu am wérgu yaram moo ko ëpp mm. ndax yi yi nga ko defal yëpp bu bu ca wérgu yaram jiituwul du ko mën du ko tal. Mm. kon tabaarakallaahu ñu sant ko ci taxawaay bi ñaanal ko yàlla ah lii wane na ni Tiwaawan yitteem la Tiwaawan solo soloom la waaye itam fonk na waa Tiwaawan ku xool li mu fi dajale te lii ñu fi daje tey mën naa wax ni hôpital sax boo fa demoon amaana doo doo am lu ni toll. Mm-hmm. waaye mu dajale ko tey ngir yàlla ak waa ngir yàlla ak sagu dëkk bi ñu ndokkeel ko ci bu baax ñaanal ko yàlla yal na yàlla gën ko yokk yàlla gën ko barkeel waaye yàlla boole ko ci ñi nga xam ni tabaarakallaahu ëllëg e, dëkk bi ci ñi muy sagoo lay bokk ci ñi muy tiitaroo lay bokk ñu ngi koy ndokkeel bu baax sant ko bu baax ak mbokk yu baax yi mu àndal ah honorable député e, Yaya Diallo mi nga xam ni tabaarakallaahu moom tamit a ah, ku dégg ay discours am xam ni Tiwaawan rek lay wax. Mhm. lu jëmale Tiwaawan kanam lu yokk Tiwaawan ak lu koy taaral kon ñoo yaakaar nañ ni seen taxawaay bii sori na lool ci njabootu Seydil Hadji Malick sori na ci njabootu Tiwaawan sori na ci ñun taalibe yi nga xam ni amuñu lu dul Tiwaawan Tiwaawan la ñuy sagoo Tiwaawan la ñuy tiitaroo kon lu mel ni tabaarakallaahu koy ñaanal yal na yàlla gën koo yokk muy am di bari nit ñi itam di ci mën di sukkandiku ba uh, mën a am seen aafiya mën a am seen wér gu yaram te ku ne xam na ni lislaam moom diine la joo xam ni dafay sàmm uh, nit ki am wér gu yaramam julli sax uh, li muy foor foor diine may na la boo amugul sa wér gu yaram nga bàyyi ba am ko doo ko mën a def doo ko mën a joxe ca na mu waree kon tabaarakallaahu ñu ngi koy rafetlu ñu ni ñi nga xam ne it wax dëgg yàlla ci suñu niveau rawatina usratul amin bi nga xam ni tabaarakallaahu ah mi ngi doog a sosu waaye itam moom tamit yaakaar naa war naa mën a xool ci lii war naa mën a xool ci ñi ko jiitu li ñu def mu mën a jaar ci tànk yooyu tabaarakallaahu te itam ñu ngi tàllal sunu loxo eh, di wax ni rek képp koo xam ne daal nii ci Tiwaawan ñor na la soo nu ci woowee nu ñëw boo nu ci intéressé nu bokk ci ndax tabaarakallaahu xam nañ ni loolu mooy sunu wàll loolu mooy sunu cër te dañuy sawar lool ci am ko ñu sant ñëpp nag képp koo xam ni jàpp nga ci rek xëy na xaaju Yellamine wax na ko léegi làmmiñam doyoon na ci sant leen waaye ñu ñu joindre suñu kàddu ak suñu làmmiñ ci sant képp koo xam ni rek jàpp nga ci lii tàmbalee ko ci médecins yi tàmbalee ko ci ñi leen di jàppale ñi fexe ba lii yomb képp ku ci dugal sa xalaat dugal ci sa xel dugal ci sa yitte ñu ngi lay sant di gërëm presse bi tabaarakallaahu ci seen taxawaay di leen ñaanal yàlla waaye di la gërëm yow alxaaji Mbeng ndax lii nga wax yëpp mbaax rek la te wax ci sa mbaaxu moroom moo du wàññi ci sa mbaax dara lu dul daf lay gën a yokk bëri nañu la sopp bëri nañu la euh, estimer te du dara lu dul ni ngay joxe cër nit ni ngay joxe cër doomu aadama kon nag ñu sant la yow tam bu baax ah Ndokh TV moom laay tudd ci presse bi nag mu yóbbaale ñi ci des ñëpp ndax mooy sunu chaîne tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp man ak Pape Malick Diallo ñoo fi wuutu euh, usratul amin waaye itam alxaaji Jawhar Gaye mi itam nga xam ni tabaarakallaahu ci sunu mag ñi la bokk ci wéyjur yi la bokk moom tamit ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole defal jàmm yàlla defal nu sutura yàlla defal nu barke lii itam yàlla dugal ko ci suñu balance yu yiw nu ñëpp nu bokk ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal nu am dafa am lu muy dëggal mooy cofeel mooy cofeel bi sëriñ Abdou Aziz Al Amin amoon ci man moom la ñëw dëggal si tey moo tax ñëwam euh, marqué ma particulièrement moo tax ñëw bi neex ma ba fa neex yam donc sëriñ bi ñu ngi lay sant góor gi fa mu ne bu gisee lii xolam dana set parce que cofeel gi ma ëmbaloon xam naa ko mm-hmm. boo ñëwee feddali kóllëre googu ñuy bés def bés bu mel nii nga dagg say yitte surtout ma xam ci li nga nekk mm-hmm. xam naa ni fi mu toll jot amoo ci dara

yàlla na ko yàlla jëmale ci kanam donc suñu yëpp la taxawaay biñ ci war a am dinañ ko am en tant que doom taxawaay biñ ci war a am dinañ ko am en tant que talibé ndax nag yaa ñu da ñu jiitu rek waaye suñu yëpp la donc boo ko sosee ñun nga ko sosal parce que ñun noo ko waroon a def kon nag ñi ngi la ci sant bu baax alaaji njawar sant nañ la bu baax a baax a loo wax ci ñun ci mbaax rek ci yow la ne mm-hmm. ci yow mii la ne parce que da suñu kilifa mm-hmm. di kapandoo ñun di reew ñun bu wax ñu dëgg jotee yi def nga wax ñu dëgg donc mag loolu lañ koy doyee ci lu baax rek nga nekk yàlla mi nga xam ne mooy doole yàlla la dooleel guddal sa fan bàyyi la suñu wet ndax suñu wéttal nga suñu suñu xarit nga bu la neexoon nga ne du ma seen morom te boobu it ñu nangul la ko ah, waaye fu ñu la fekk yaa ngi ci xale yi di jubbanti di corriger di defar donc bu soo fekkee lu ñaaw donc ñu ngi lay sant bu baax ci kii bi ndox ti bi nag moom damay jël sama kàddu teg ko ci bu sëriñ bi moom mm-hmm. wax ci moom yàlla moom mooy boole ay doomu aadama boole na ma ak moom. Mm-hmm. yem na lu bari loo xam ne daf koy wax mbaax a tax mu di ko wax. Mm-hmm. mais moom xam na ne sama xarit la. donc bu naan sama sama géer. Mm-hmm. ci mbaax la ko teg. mais sama xarit la. parce que El Hadj loo ko defal ci teraanga mu delloo ah, donc li nga xam ne mooy relier. géwél ak géer. liiwu ko ak doomu aadama yi. dama ko gis mu jëf ci man. dama ko gis mu jëf ci keneen. donc loolu dama la koy seedeel nga xam ne alaaj nit ku baax la xam naa ne xam nga ko mais ñun ñi muy àndal de xaritam ñuy nekk guddeeg su suba ngoon guddeeg bëccëg ñun mën nañ wax ci moom parce que ñun ci biir lañ koy fréquenté peut être que am na loo xam ne yow du la ko woon ndax kersa ndax cofeel ndax li nga nekk kilifaam mais ñun xam nañ alaaj nit ku baax la ñu ngi la koy seedeel ñun ñi muy àndal xam nañ ne nit mm-hmm. kon nag ñaanal ñu ko yàlla. lii nga xam ne mi ngi ci communication ndox ti bi yàlla def ko une chaîne nationale. une chaîne internationale. Al Jazeera la ñu bëgg mu doon. sëriñ bi euh, sama am nga cër boobu. ci sa wéyjur. Serigne Abdou Aziz Al Amin am nga cër bi ci sa maam Serigne Babacar am nga cër bi ci sa maamaat Alaaji Malick ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal ñu ko suñu xarit bi yokk ndax bu yokk teewoon yokk ñu sant bu baax jërëjëf fii ci journée bu importante bi nga xam jàpp naa ne tey day marquer les esprits ndax nag c'est pas la première fois ñuy ñëw ci journée de consultation waaye bu am ampleur bu toll ni c'est la première fois ñu koy rafetlu bu baax di féliciter waa ànd nawle yëpp waaye nag di si jiital ki nga xamné suñu xarit la suñu frère la ñu am ak mom jaar-jaar politique yu bari muy le coordinateur de andanawle ye lamel gumbala Goumbala ñu koy jaajëfal parce que initiative yi bari na waaye bo xalaté lu jëm ci santé xalaat ay secteur clé yu melni jeunesse tay bo téggé lu toll ni dañ lay sant gëreum la bettu ñu ci mom nak ndax euh, biñ ko dalé suivre yag na biñu dalé and ak mom yag na initiative bu soxal population Tivaouane rek ye lamel mu ngi ci kon ñu koy santaat di ko gërëm ndax foog naa ñun lii rek lañ mën a defal waa Tiwaawan tey bu Tiwaawan soxlaa ñu summeeku taxaw jëmmal dëggal li nga xam ne mooy bëgg-bëgg Tiwaawan mooy suñu wareef kon kenn ci ñun euh, di suñu lépp bu defee lii dañuy ñëw dooleel si ko wan ko ni lu sommes à ses jaajëfal ko parce que lii ñun ñëpp la war waaye itam encouragé ko ndax xale bu nekkee ci yoon di def lu am solo nii da ñëw nekk ci wetam encouragé ko ñaanal ko yàlla

xool lu baax lu rafet mu koy indi ci dëkk bi waaye itam dans l' ensemble dans une dynamique unitaire ñu xool li gën pour dëkk bi rek ñu koy doxal kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax dina ci remercier. defoon nga fi action yu mel nii comme ni nga ko defee yow tamit defoon nga ko fi dans l' avenir est ce qu' on peut s' attendre à ce que du côté de Yaya Diallo tamit mu amaat yeneen édition yoo xamante ni dafay jëm ba léegi la santé de proximité def ay consultations gratuites. tout à fait tout à fait lépp loo xam ne jàpp nañu war na jëriñ Tivaouane ñu sommes prêts à le faire multisante, santé éducation pour l'emploi de la jeunesse tout ce qu'on peut faire pour servir Tivaouane nous ne ménagerons aucun effort pour cela et inchallah dans les mois à venir nous verrons ensemble comment faire pour vraiment la population de Gistibokom ci li nga xam ne mooy politique yi nga xam ne son excellence le président Macky Sall mu ngi koy def. Mhm. te santé dafa nekk secteur bu clé sur le PSE. Mhm. dinañ ko def incha allah li ñu war a laaj Ylamine mën nañ la ko laaj de telle édition lan moo koy motiver ba à chaque fois loo leen defoon rek ngeen koy gën a yokku te ku ne xam na ni consultation gratuite am ñoo xam dañuy ñëw ñu faj leen am na ñoo xam dañuy dem ak ak li nga xam ne mooy ordonnance yéen a koy jëlaale en charge. Mhm. lan moo war a motiver de telles actions de votre part. d' abord conviction la comme li ma la wax la politique c' est d' abord une conviction boo amee gëm-gëm nekk jeune di politique am initiative yo xam ne da koy am naturellement tey xam nañ ni euh, yee Lamine a donné des millions pour li mën am ndax def nañ consultation xam nañ le coup bi muy laaj mhm. conviction la d'abord ak bëgg Tivaouane

foog naa àndoon coalition dem tay jeune bo ci cité rek foog amna lo na loo euh, mu koy delloo population bi parce que population bi daf ñu ko retourner ba mu mat kon li ñuy def jàppal ni rek seen ce n'est que le début du commencement ñaan nañ yalla am d'autres initiatives pour la jeunesse de Tivaouane pour la population de Tuaone. ñuy ñaan rek lepp lo xam rek jàpp nañ ne war na mën a defar dëkk bi ñu ànd ensemble defal ko lii daal sedd na xol rafet na ci gàttal. seeru santé am solo ci réew mi ñu gis ni à euh, yu mel ni activité consultation rek lañ gis ñu ñëw ci wàllam. Mhm. donc ndax pare a xeexal ci wàllam combat boobu xamante ne ñu mën a am ay spécialistes waaye ay professeurs yu baax yoo xamante ni dinañ mën a jàppale. c'est un plaidoyer que nous avons toujours porté à l'Assemblée nationale mhm. foog naa djeyé bobu boobu nga xamné ba légui ñu ngi koy fàttaliku di am ci hôpital Maam Abdou Aziz de bokkoon ci di cri de cœur yi nga xamné porté won nañ ko ba tay président Macky Sall andil ñu benn hôpital bu bess tax bo xamné mu ngi en construction mhm. bâtiment kese deug la amna na solo waaye foog personnel bi aussi lu am solo la lu ñu yag wax la assemblée nationale et foog nañ ni le ministre Marie Khemesse dina dégg cet appel là ak infrastructure bu ñu mën ci tégal bu amul accompagnement it infrastructure bi du am njëriñ lool ci population bi te foog naa président Macky Sall initiative bi mu am mooy tabaxal ñu lu bees tàkk dina ko accompagner ak un personnel efficace ba li nga xam ne mooy population Tivaouane Peulh bi mën ci jëriñu convenablement. ñi ngi leen di nuyu di sant waa Tivaouane yëpp mais sant bi nag tey Yellamine Gumba la la tudd ndax nit mun na jël initiative initiative bi jëm si boppam mais initiative bii. kuko def xalaato sa bop population nga xalaat bo xalaate population barna ci ñoo xamni tay tey nañ fi ñu di leen topato fatlu ko lay doon ba seen adina yépp xal yi nga xamni dañu xarafal nañu wax ne ñun de min mo fi indi woon auto ci lañu xaraf ñi nga xamni dañu am problème gis-gis mën na mit ci ñoom jaaxal ci yelamit min lañu ah ñun min mo fi indi woon kat ci lañu amé lu net ci lañu suñu bëtt jigéen am ñu ci amoon problème maladie gynécologique dina ci ñoo xam ne ëllëg dañ ñaan ñun kat ci lay yàlla mën nañ ko jëlee noonu ñu ko mën a waxee si ñoom noonu lañ ko mën a waxee aussi ci mag yi di nga ci gis mag mu ñëw tey jii ñu jox ko garab boo xam ne bu ëllëgee tànk yi métti ëllëg wala yax yu métti yàlla dina ko ci dimbale ba mu am ci saafara noonu la baaxee tamit ci ki nga xam ne dafa am problème mu bëñ parce que fii tey moom lépp la boole ndoo deful benn rek neewul damay joxe affaire lunette rek neewul moom dafa jël médecine générale yi nga médecine yëpp mu boole leen def leen benn benn truc donc loolu initiative bu baax la boo nekkee responsable si dëkk dangay ngay def ay initiative yoo xam ne day jëriñ nit yi bi mu koy def daf ko def sans tambour nii trompette malgré que dañuy wax naan am na publicité publicité bi bëriwut tuuti publicité la def mais teewaayu nit ñi rek moo la woon importance li mu doon def lan la nit nag bu def lu am importance nga xam dafay jëriñ nit yi dañ koy sant ci li muy def man ne maa ngi koy sant bu du woon lii sax dama koy sant

buñ koy def yaak maire bi and def ko parce que loolu laa gëm dama gëm ni kuy liggéey maire bi dafa la war a jàpp parce que yow li ngay def maire ngay liggéeyal booy liggéeyal maire nag maire war na si dugal loxom donc vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la encourager di la remercier aussi parce que remerciement yi ci la bokk il faut ñu la remercier parce que nga def acte bu loyal acte bu noble boo xam ne demul fudul ci population en tout cas man content naa si li nga def parce que aussi je suis pas déçu parce que tamit am na ñoo xamee ni am nañu moyen kari comme yow wala ñu am relation comme yow te defuñu comme yow donc nit ki bu lay pour ñi nga xam ne moyen wala war nañ ko mën te defuñu ko bu ëllëgee ñu xalaat comme yow ñu toppandoo la def comme ni ngay def en tout cas nous ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm xale yi fi parce que les tamit lu am solo la yéen yéen a koy couvrir seen bopp ça veut dire que ça vous intéresse ñu ngi leen di gërëm di leen de kàddu gi sax daf ñoo warul parce que li ñu def rek dañu am yéene euh, commencer d'abord par Santiago. yàlla am yéene parce que les ñi ngi ci juróomeelu édition. yàlla dimbali ñu chaque année ñu indi ay médecins yu jóge Dakar yu nekk Tivaouane ñu dajale leen euh, wut ay garab yu bëree bëree bëri indi fi ay rajo koo xam ne ku am rajo ñu rajo la ay spécialiste yëpp ñi ngi fi indi leen Tivaouane pour que ñu faj waa Tivaouane loolu nag pour man sant yàlla la bu la yàlla dimbalee lu tuuti li nga man nga mën cee jël sa wërsëg euh, dimbali ci ay doomu aadama je que loolu ñun sant yàlla rek dañ ci def di remercier waa Tivaouane parce que mënon nañu ko xalat mënon nañu ko def mënon nañu ko jëli mënon nañu ko indi te waa Tiwaawan duñ ci jariñu mais euh demb man sama fierté la 3 heures du matin am nañu fi ñëw bima may ay 6 heures du matin ñi ngi leen pek ci salle ba lañu ñu di nelaw donc lolu sant yalla la biñuy julli fajar ba paré euh, école bi fess na del donc moy woné né besoin la moy woné né nit ñi soxla won nañ ko te loolu je pense que doyna sante yalla yalla dimbali ñu nak ñu téla commencer 8h ba légui mi ngi ci ku faju dem euh donc amna aussi ay xalé yi nga xamné ñi ngi leen doon xarafal moy camion bële ngeen gis ci biti camion bi euh ay bloc opérateur mo ci nek xalé yi foofu lañ leen di faje yalla dimbali nañu dañu prévoir lu man ñaari téméré xalé mais alhamdulilahi rabbil alamin biñu ñu inscrire ba démb ñu yem ci téméré xalé ak lu top mais ñom ñep légui ñu jeex yàlla mi ngi ñu dimbali ñi ngi leen di jël en charge euh, loolu nag comme ni ma ko waxee euh, Tiwaawoon moo ko moom parce que ñun Tiwaawoon lañu la ñu xam Tiwaawoon la am lépp loo xam ne ñi ngi koy wuti lépp loo xam ne ñi ngi koy sonn pour Tiwaawoon moo tax donc du ñu def lu dul sant yàlla di remercier képp koo xam ne population Tiwaawoon di ci jiital suñu xalif général te Tidiane yal ko yàlla may wér yal yàlla guddal fanam yal na yàlla sàmm ko ak képp koo xam ne dafa soxe ko ci famille Seydi Hadji Malick ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni euh, bés bi awma ci woon sax kàddu ndax yàlla daf ma boole ak ki nga xam ne mooy Ablaye Ndiaye euh, yàlla boole ñu ñuy ànd ànd boo xam ne ànd bu rafet la ñi xam dinañ xam li may wax yàlla mayewu ma euh, yenn kàddu yi mënuma ko jël ci mbooloo mais moom xam na man xam naa daf koy wax souvent ne yàlla min ak man politique boolewuñu li ñu boole ëpp na loolu ñi ñu jege xam nañu ñi ñu sori peut-être mën nañu njor wala ñi ñu jege xam mais li ci nekk dëgg-dëgg ku dul moom ak man ak suñu borom bi ñu tiim euh, je pense que xamu ko di ko remercier nag muy nit ku nit ku baax parce que man xam naa ne bonuma mais bu ma nee diw baax na rek xam naa ne baax na mën naa seede ci moom parce que ab Ablaye dama koy fréquenté ci biir waxuma li ñëpp xam de waxuma li ñëpp fekkee waxuma li ñëpp yëg mais ci biiram laa laa nekk donc mën naa seede ci moom lii nit ñi gis ci moom ci biti loolu moo nekk ci moom ci biir ci yar ci yiiw ci mbaax des fois mu def loo xam ne yow mi nga xam ne sa yoon newu ci du sa poos sax sa da am ñeewante ci moom foofu la foofu la baax mën a yem donc man bu ma ab Ablaye Ndiaye nit ku baax la xam naa li may wax nit ku baax la kon nag mënuñu lu dul ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla yokk ko yàq wéral ko li mu yéene ci Tiwaawan yàlla dimbali ko ba mottali ko barki démb damay seede ci rajo bi ci projet bi nga xam ne mu ngi koy def dafa am équipement yoo xam ne daf ko war a jënd indi ko pour Tiwaawan équipement yooyu daf ko war a jënd pour yi mu tabax yëpp mais bépp bu mu jënd rek ci bato la ko teg bato bi indi ko mais bi muy jënd bi Tiwaawan daf koy yàkkamte mu nga xam ne dafa jël avion fay ko dugal ko ci avion bi pour matériel bi ñëw foofu la yéene mën a yem te loolu mu def amul dara luñ ko cay tegal ci lam ci waroon a am donc alalu boppam la yéenam la yéene bu mu am ci Tiwaawan kon nag yéene boobu mu am ci Tiwaawan ñu ngi koy ñaanal yàlla dimbali ko ba mu mottali parce que xam naa ne bu mot bu yéene boobu bu matee Tiwaawan dootuñu jooy dara ndax lu mu am Tiwaawan la ko yéene lu mu man mi ngi koy def ci biir Tiwaawan suñu borom mi man nag yàlla na ko kattanal donc bés bi moo ko moom. bësam la kàddu yi ma ci jël dañ ma ko forcer rek mais wax dëgg yàlla man waruma ci woon a jël kàddu ndax bërs bi bësëm la ànd nawle wax na ko bërki dem ak ànd defar benn la peut-être que problème mu identité la mais amatul xaj ak seet nit ñi sax xàmmeetuñu nit ñi sax xàmmeetuñu lii dañ ko def parce que chaque année dañ koy def mais ñaari ñaari ñaari mbooloo yi dootul ñaar benn la ñu nekk ci kilifteefam parce que nit ki di ngeen ànd ci politique ngeen euh, dawal tuuti nga gis loo ko xeebee mais alhamdulilah ablaay bi ñu yàlla booleeg moom ci politique ba léegi bës bu jot dañ koy gën a naw bés bu jot dañ koy gën a respecté donc loolu moo tax ànd bi ñu ànd euh, képp ku ñu bëgg daal bëgg Tiwaawan nañu ñaanal yàlla sàmmal ñu ànd bi fi nga xam ne bëgg nu ñu fi dem yàlla ñu fi yàlla eggale donc Ablaye sa bés a ngoog Ablaye micro yaa ngoog Ablaye waa Tiwaawan a ngi nii waxal ak ñom parce que man bés bi amu ci kàddu jërëjëf. alaykum mbokk tiawon ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam dafa na ni kàddu yu du bari comme niko yele min waxe rek dañuy ñëw pour and ak mom gungé ko ñëw pour féliciter ko ñëw aussi pour ñaanal ko yalla ndax bima duggé fi ak li gis ci mbolo sama yaram dafa daw té li ku bayiwul xel yalla bayiwo xel say mbokk mënoo ko donc yéelamin ñu ngi lay ñaan bëpp ñu ngi lay ñaanal bëpp dërëm bo xamni ñak nga ko fi journée tay bi yalla na la ko fulal ba doo ci yëg dara dara lu dul bànneex ak mbégte lii dafa war ku nekk ndax li danaan bala nga naan naam da fay nekk te nit loo am am te amoo wér amoo dara donc su xalaatee jàpp journée tuddee ko journée de constation gratuite di ko def tey di cinquième édition bi te boobu ba léegi delluwa si gannaaw benn yoon bo yokul wañu wo donc yélamin man en tout cas content na ci yow content na aussi si ni nga doxale te li kep ko xam ko yow nga ngay kilifa ci dekk bi ak ndomba tang bu meuna am warna meuna tal autom otom fekk la fii sant la gërëm ndax li du affaire politique ndax du affaire parlo da nga wote wote teewoon yëpp ñew mën na wax yemul sax département bi yëpp la wax ngi fi ndax li nga andi fii mën naa wax ni lañ nit ñi daw di seet hôpital moom nga andi fii donc hôpital nga teg fii si école bi donc yow Lamine ngi lay sant di la gërëm comme ni nga ko waxee bi ñu yàlla boole ba léegi man aussi personnellement rëccu ma lu ma doon am xamante yow ndax li ñu boole dafa romb cadre politique dañuy waxtaan si biir ak si biti du ñu toog journée te déggantoo ñu lu ëpp ay ñett ba ñeent yoon. dañuy toog journée te duñu gisante su ma nekkee tiwaan ñooy nekk ba weekend jeex ñu àndoo ñibbi donc loolu li ma waxoon keroog sëñ bi laay laay réitéré fii ñun ànd defar ak ànd nawle dama ni benn kër la boo naan wala boo leen tuur loolu laay wax loolu laa gëm donc loolu bu amee sa taxawaay moo ko waral njaboot bi ma yàlla boole su ma ànd ak ñoom si politique ñu may gunge saa su ma jógee suñu sawar aussi gungé ma ci sa mbiru bop te non la aussi sañ njabot sawar gungé la ci sama mbiru bop donc loolu yalla def la bi may ñëw may and ak mam Ngouda and ak Abdou Sall and ak Lamina and ak Matar Diouf mom aussi tamit di kenn suñun am taxawaay bop aussi ci dimanche mi ngi japp journée bo xamni si yéene boppam la mëno bëgg na xamal nit ni ka sama digënté yow comme mburu ak soow fassiyene yene yéene sargal la ba dimanche mo fassiyene dem wuy jug donc Matar ñu lay sante le gërum baaxa baax lundi lundi le 25 di sante aussi aladji Modou Gueye mi nga xamne tamit suñu kilifa la di ñu gunge di ñu jàppale ànd ak mbay Samb and ak ñom Amina wa and def yepp nga fi sax su lim ci damay juum en tout cas yelamine ñi ngi lay sante bu baax Serigne mbay aussi mi ngi fi Abdou Sall ñepp ñi ngi fi. and defar ñëpp ñaas ñepp mën naa ànd defar yepp ñi ngi fi. ñi faju sax donc yelamine lii dal hmm. vraiment yàlla na yàlla jàppale la yàlla taxawu la képp koo xam ne yàlla dogal na aussi nga ñëw fi am jàngoro yàlla na yàlla dimbali ñu ba lii yéen a mi yéen a si tey bi boo fiy jógee yàlla may la nga am wér wér wér gu yaram bu mat sëkk ba képp andi jàngoro yàlla na ko yàlla faj ci barke maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah